الإمام ابن حبان رحمه الله سنو نتتير بيو كتاب الثقات بن قصة بو قصة بو دو يرم كي واجو خمنتني مو جن سيو تي برم نقطة يو مبتي تمام كيلي فولا بني وخ أبو قلاب الجرمي عبد الله بن يزيد moom moo nettali loolu mu ne ku ñuy wax abdullah ibn muhammad kenn ci salafu salih kenn ci taabii yi abdullah ibn muhammad moom mooy nettali qissa bii nga déglu ko abdullah ibn muhammad nee na dama toog benn bis ne naa jóg dem ci yoonu yàlla seet lu ma def ndax yàlla gërëm muy ribaat ribaat mooy lan mooy faandu ci olof faandu mooy jullit ñi tëdd seen kër yi di nelaw nga gàddu sa arme ñàkk a nelaw garde leen pour sàcc du dugg pour lor du dugg pour fitna du dugg liggéey boobu lu ko gën a rëy ci jaamu yàlla amul moo tax xale yu góor yi jóg di def comité vigilance di dimbale koñ bi ba sàcc du dugg di dimbale nit ñi ba ñu mën a nelaw di dimbale nit ñi ba ki bëgg xëy di xëy du am nattu luñ leen mënti fay fay bi jóge ci yàlla moo gën a rëy kon ñoom ñu koy liggéey nañu ko liggéey liggéey bu sell ndax jaamu yàlla la mooy métiem gardiennage jaamu yàlla bu ngand la su ko nit ki respecté te xam ko Abdullah ibn Muhammad ne dafa génn jëm ci Érishu Misra ci côté Misra ca kaw nee na mi ngi dox di uti tuyaaba nee na bi may dox ba ci yàgg yéeg ci montagne ci benn saxra ci benn àll nee na maa ngi romb benn xayma xayma mooy néeg yooyu naar yi defar ci àll yi nee na maa ngi dégg benn waay mi ngi wax naan rabbi awzini an ashkura nicmataka alladi anamta calaya wa cala walidaya wa an acmala saalixan tardaa wa adxilni bi raxmatika fi cibaadika alsaalixiin nee na waa ji baat boobu lay baam رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين mooy يلا يلا مو يبل مو ma mën a sant xéewal yi ndax defal nga ma xéewal defal nga ko sama ñaari waajur kon war naa jëf jëf juuy gërëm yow yàlla waaye ginnaaw gi maa ngi lay ñaan nga dugal ma ajjana boole ma sa jaam yu baax yi nee na Abdoulaye Muhammad bi mu déggee waa ji jàng baat boobu ci jàng bu daw yaram wax ju teey wax bu ànd ak toroxlu ànd ak ngëm ak cœur ouvert nee na ma yërndu sama bët ci biir xayma bi nee bi mu yërndoo biir xayma bi ndeke waa ji wax loolu handicapé la handicapé la nee waa ji ñaari bëtam gisul kon lan la silmaxa ñaari loxoom dañoo dagg ci mbagg yi amut loxo nee na yemul foofu ñaari tànkam dañoo dagg ci cosaan li kon amul ay tànk amul ay loxo amul bët nopp yi du dégg dafa tëx nee na mi ngi xool waa ji dégg ko waa ji di wax loolu abdullahi muhammad nee na wa qultu yaa abdallah ay yow jaamu yàlla bi waa ji dafa tiit ndax bi mu déggee kiy wax lii ak ka mu ko tegoon ak lii mu fekk li ko dal yépp yàlla li nga ma defal ni mu réyee danaa la sant boole ma ci jaam yi ma gërëm ma gërëm yow yàlla li nga ma defal te waa ji amul ay bët ay nopp du dégg ñaari loxoom ci mbagg yi dafa dagg ñaari tànkam ci cosaan dafa dagg waaw kii lan la war a sante yàlla lu tollook muy wax wax ji muy jëm ci kaw nee na moom loolu moo koy jaaxal nee na ma a ko yaa abdallah arab ku mu xamul jaamu yàlla la lay wooye ne ko ay yow jaamu yàlla bi man day dama dégg ngay wax lii ak lii waa ci lan ngay sante yàlla lan lan la la yàlla defal ba nga di ko sant bokk imagine ku lolu daloon ci ñun ndax di nga sant yàlla manam ab do ki waji neena man yëguma ci mom lu mu wara sante yàlla parce que ay ciirem yépp dafa dem neena waji tontu ko ne ko ya abdallah ay yow jaamu yàlla bi taxaw di malaaj laaj والله لو أرسل الله الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني ما وفيت نعمة ربي على هذا اللسان الذاكر منكو إيه يو جام بما يلاد لن لما يالا دفل بام ديكو منكو كاي ما سو يالا يبولون مونتاني نيو دال سما كاو بما فاتش تاس نينا يالا يبل جيتي ملق nee na mënumaa fay yàlla ci teraanga làmmiñ bi wax nga di ko dégg loolu mënuma ko fay yàlla làmmiñ bi rekk sant yàlla la wa lisaanan wa shafatayn yàlla ne maa la may yow doomu aadama làmmiñ booy waxee ak tuñ ndax làmmiñ boobu mën nga ci sant yàlla nee na bi mu waxee loolu ba ci yàgg mu ne ko fan yi ñetti fan a ngi nii fii ma toog di wax nii benn doom bu góor laa amoon nekk ak moom ñetti fan a ngi nii gisuma ko moo ma doon dimbale may jàpp moo ma doon dimbale lu ma soxla sama doom bi xale la waaye gisuma ko ñetti fan te aw ma ma ko wëral gisuma ku ma ko wëral ci àll bi ma nekk nii ne ko ndax duuma dimbale jaamu yàlla ci man wëral ma sama doom bi xam nga ku ay tànkam dagg ay loxoom dagg ay bëtam tuuru mënta wër ci àll boo xam ne ay till ñoo fi nekk ak gaynde ak luy lor nee na waa ji ne ko wallahi ma saa ahadun fi xaajatin afdala min xaajatik ne ko kenn ci nit ñi doxul di ut tuyaaba lu gën a rëy li nga ma sant muy handicap bi nga doon di wër sa doom pour ma wëral la ko loolu doy na ma jaamu yàlla naa jaamu yàlla ci yow abdullah bi muhammad moo ko tontu gi nee na ma bàyyi waa ji mi ngi toog di continuer di wax wax ja mu doon wax رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين واجي ميغي كونتيني دي وخ wax ju daw yaram jooju abdullah muhammad ne ma génn di wër doom ji nee na doxuma ay tànk yu sori rek lu dul ma séen tànku xale tànk tànk boo xamante ni dafa dagg mu ne ma ni waaw ma daw bi ma dawee di xool ndeke yoo beneen musiba am na musiba bi mooy lan ndeke bukki yi lekk nañ xale bi ba benn tànk bi rëcc leen ma daw bukki yi daw ñetti nattu la amoon amul ñeenteel bët yi gisut loxo yi dagg tànk yi dagg muy sant yàlla ci làmmiñ am benn doom boo xam ne moo koy utal lu mu lekk di ko indil lu mu jàppoo di ko dimbale doom ji génn ñetti fan gisu ko tey ay bukki lekkaat nan doom ji teg ci ah abdullah ibn muhammad ne ma taxaw ah, am naa problème de kii ni mu mel nan laa koy xabaaree natt bu réy bi xaw ma may def nee na may xalaat ndax nit bu amee natt il faut nga xool noo jaar ba wax ak moom ba mu oyof nee na ma taxaw di xalaat xaw ma lu ma wax ba ci yàgg sama xel dem ci yont yàlla ayub ak nattu bi ko daloon nee na ma waaxu ñëw bi ma ñëwee ne asalaamu aleykum wa rahmatullah nuyu ko bi ma ko nuyu waaji ne ma alasta bi xanaa du yaa taxawoon fii léegi waaji ne ko waaw waaw mu ne ko ah ana sama doom ji gis nga ko ndeysaan wax ko ci wax bu yërëmtalu gis nga ko nee na ma bañ koo tontu ne ko waaw sëriñ bi mu ne naa mu ne ko ndax yaa ngi fàttaliku dund yont yàlla ayub waa ji ne ko ah waaw waaw maa ngi koy fàttaliku de mu ne ko ayub lan la ko yàlla tegoon ci ay nattu waa ji ne ko ah ayub de yàlla da koo natt woon ci yaramam ak ci alalam ayub yaramam wéradi mu feebar dix-huit ans tëdd mënta wér te ëpple woon alal ci dëkk bi gënoon a taaru ci dëkk bi lu ñuy takk ak lu ñuy am ayub moo ko ëpple woon ñépp àndoon ak moom natt bii dal ko kooku day loolu daloon na ko nee na waa ji mu Abdullah ibn Muhammad ne ko waaw ba ko yàlla tegee loolu nan la ayub defoon waa ji ne ko wajadahu sabira yàlla fekk na ayub mu nekk ku muñ mu ne ko waaw ndax ba mu muñuwee rek ndax ay mbokkam dawuñ ko waa ji ne ko ah ay mbokkam daw na ko ñu ko jege ay xaritam ay dëkkandoom wax ko ko ba ci yàgg xel mi ñaw mu ne ko waa yow sa laaj yu bari yi loo ci jublu li nga may laaj lan la nee na sama bët sama rangoñ tuuru sama boli di lox ndax bi ma ne salaat yu bari yi loo ci jublu mi ngi mel ni kon mi ngi bëgg comprendre li ma bëgg a wax nee na bi mu waxee loolu rek mu ne ko ihtasib wala dak muñal ci yàlla ci sa doom loolu bu la ko arab waxee mooy ñàkk nga ko ihtasib wala dak ne ko muñal yi nattu yàlla ci sa doom mu ne ko sa doom ji kat fekk naa bukki yi lekk ko ba benn tànkam moo leen rëcc mu seen tànk boobu daw dàqanteeg ñoom nee na bi ma waxee loolu man miy wax sama bët mi ngi taa sama làmmiñ mi ngi lox waa ji nee na mi ngi ne tekk di ma déglu ndax bët yi gisul loxo yi dafa dagg tànk yi dafa dagg nee na bi mu waxee loolu jékki rek waa ji ne alhamdulillahi alladi lam yaxluq minni dhurriyatan ila annaar allahu akbar alhamdulillahi alladi lam yaxluq minni dhurriyatan ila annaar ne ko maa ngi sant yàlla yàlla mi nga xam ne bindul ci sama ndigg njaboot buy dem safara maa ngi koy sa xoola ñàkk na doomam ci beneen nattu bu gën a kawe waaye talu koo jooy ndax sant na yàlla ci doom ji àddina la jëm du tax àddina la jëm ay bukki ñoo ko lekk kon shahid la mu ne maa ngi sant yàlla mi defut sama geño doom buy dem safara kon maa ngi sante yàlla loolu nee na bi mu waxee loolu rek wa shahiqa shahqatan fa xarajat rek waa ji hmm, rek sedd guy allahu akbar nee na bi waa ci gaañoo abdullah bin muhammad ne ma taxaw nag jaaxle jommi xamatuma nu may def man rek ak kii rek ci àll bi nii mu mel dee na te gis naa bukki yi li ñuy def ci àll bi su ma demee bàyyi ko fi bukki yi dinañ ko lekk nee na léegi man ma taxaw nag jaaxle ci jëmm ji génn àdduna nan laay def xaw ma lu may def ndax man kenn laa mënuma koo yenu mënuma koo sang mënuma koo jullee munuma koo suul ndax man kenn laa nee na bi ma taxawee jaaxle ne ah naa toog ci wetam ba yàlla def li muy def waaye duma dem mukk di ko fi bàyyi nee bi ma toogee jaaxle toog lu yàgg rek benn mbooloo agsi nee na mbooloo yooyu agsi mooy ñiy ngand mooy ñi ci àll bi nga xamante ni dañuy dogaale boroom xaalis yi di ko nangu di dogale borom jur yi di ko nangu ñooñu seen aram ndax moom ñoo taxoon mu daw pour di sàmm nee na mu seen ñooñu ñooñu daw daw daw ba ci bërëb bi ndekk gaa yi bu ñu ñëwoon dañuy jaar ci waa yi nee na bi gaa yi ñëwee fekk ma foofu ma taxaw ñu ne waa yow looy def fii lu xew ana suñu góor gi ne mu nettali leen xew-xew bi muri kanamu góor gi gars yi xool ko ñoom agresseurs yi bandi yi dañoo xool handicapé bi ni mu tëddee rek ndeysaan ñoom ñëpp ñu sukk ci kawam di jooy ñoom agresseurs yi ñoom defkatu bàkkaar yi ñoom bandi yooyu nee na ñu ngi koy wëlbati di jooy di xool kanam gi di jooy kenn ku nekk mi ngi naan بأبي عينا طالما غضت عن مهارم الله وبأبي جسما كان على البلاء صادرا نينا نيوم نيب نيو نان جين نانتي يالا بدم يي موسول خول حرام لان موتاخ دا فاسيل مخا دا فا دون سغ دو خول حرام بو بغي جاري فا غيسوتو مي ديبارام نيك وون سين مخا مي دا فا نون داي داو غير غيس لو حرام بانكو غيس مو توخو سي الله بي اك اندي كافي بي مو دون sëgg ci bañ ji xool lu xaraam ba jaare ko bët yi far nee na gaa yi naan giñ nañ ci yàlla bët yi musul xool lu xaraam te ay agresseur ñoo koy wax ba ci yàgg ñu naan yaram bii lu ku mënoon a muñ nattu la ndax yaram boo xam ne ay loxo nekku ca ay tànk nekku ca nopp yi diis te boroom bi sant yàlla di ko tudd tudd gu màgg boobu loolu nag keemaan la Abdoulaye Mouhamad nee na gars yi ñu ngi jooy ba man daal di may jooyloo nee bi mu ko defee nag nu sang ko bi nu ko sangee sang ko jullee ko suul ko nee na bi ñu ko suulee ma taxaw ci bàmmeelam lu yàgg ba ci yàgg yëngal sama bopp xam ni yàlla lu ko neex lay def ne mu tourné. dellu ci bërëb ba mu nekkoon nee na ci même guddi gi moom Abdullah ibn Muhammad nee na ma nelaw bi ma nelawee rek gis góor gi ci gént bi mu ko gisee ci gént mi ngi wér bët yaa ngi gis nopp yaa ngi dégg ñaari loxo yi ñëw tànk yi ñëw ma toog ba ci yàgg ne ko bi waaw xanaa du yow yaay sama waa ji waa ne ma balaa ah man la de ne Abdoulaye ibn Muhammad ne ma laaj ko maa faala allahu bika waaye yow lan la la yàlla defal waa ji ne ko adxalani aljanna wa qaala li salaamun alaykum bima sabartum fa nicma uqba daar nee na yàlla daf ma dugal àjjana ne ma jàmm ñeel na leen ci muñ bi ngeen muñoon nattu bi ma leen teg ay ku muñ ba ñëw àjjana yow yaa neex kër